Bienvenue sur Salam Vision. ba ci Sénégal sama xarit kenn du ko werante Omar Dieng borom gàmbaas yi borom coof yi borom jën lépp li nga xamante ne rek yittewoo naa ko man daf ma koy defaral di ma jox xeetu jën man xarit man xaw ma lépp li nga xamante ne daal dafa war ne wàllu lépp lu ñu ci bëgg moom lañ koy jox moo ne moo koy def képp gën a jëm lépp lu baax commencé mu ñëw ci yow. ndax Omar Thiam lañ leen wax. waaw Omar Thiam. jën yu baax yi te Sénégal léegi dafa bëri jën yu ñuy yar. il faut nit ñi xam loolu. jën yu ñuy yar dañ koy importé muy ñëw. parce que Sénégal bu ñu njëkkoon ne jën sauvage lañ xam mooy jën yoo xam ne si géej gi lañ ko nappee. dañuy jën yooyu la ñuy jaay mooy jën pêche du jour. waaw jën yooyu moo gën a neex jën yi ñuy importé ñu ñëw. xam nga léegi jën dafa am élevage. maanaam dañ koy yar ba mu mag ñu koy indi. Ah. te loolu dafa bëri léegi si réew mi moo tax ñu bëri jën su yombee rek mm-hmm. xamal ne baaxul. macha allah mais jën yi baax coof dorade yi baax jën sëdd yi baax dafay cher. Mhm. kon donc Sénégal. kon yéen a ko déggandoo. waaw ndax moom ba ma ko xamee ba léegi ci jën la yëngu. moom mu yar dëgg mu nekk xale ba ñu ma nekk ba léegi. waaw dëgg yàlla ku ku yar Balla Gaye kat mil moom ñu jàng école léegi nag Paala mais xam na a gars yi doo la jiwoon. <laughs> <laughs> Bienvenue sur Salam Vision.